jërë ngeen jëf mbokk internautes yi équipe nationale du Sénégal war a jàmmarloog ñi nga xamante ni ñooy waa Qatar pays organisateur waaye nag mu doon match boo xamante ni match bu bëri danger loolu la si sunu gaynde yi équipe nationale Sénégal ñu fàttali leen rek dafa mujjoon ñàkk li nga xamante ni mooy premier match am diggante moom ak Hollande waaye nag ñi nga xamante ni tam ñooy waa Qatar ñoom itam dañoo ñàkkoon seen match bi nga xamante ni rek moom lañ doon amee ñii di waa waa mu doon match yoo xamante ni nag match yu jara def li nga xamante ni mooy ay jàngat loolu la diggante Sénégal nga xamante ni ñooy waa a Qatar naam sax Sénégal mooy les champions d'Afrique moom nag dafay jàmmaarloog ñi rek dañ leen rek wax nga xamante Sénégal a mën a am dam waaye nag bu ñu sukkandikoo si ki nga xamante rek naam sax gisuñu ko benn yoon mu wax si li nga xamante mooy coupe du monde monde bi nga xamante ni Sénégal rek dem na moomee rek di wuyoo si turu Selbé Ndom moom Selbé Ndom nag jamono ji nag wax na yëkkati na ay kàddu yu am solo solo si li nga xamante ni mooy si jafe-jafe rek yu sunu gaynde am nee na nag bu ñu sukkandikoo si li nga xamante ni mooy kaawu na nag Sadio Mané rek wax bu retaanu rek la wax na Sadio Mané jaan rek moo ko màtt waaye nag ñun Sénégalais yi gisuñu loolu dañoo gis ni Sadio Mané ni moom Selbé Ndom yëkkati na ko wax ay kàddu yoo xamante ni ñu bëree nag doon ay Sénégalais dafa mujj retaanlu naan dafa war a noppi waaye nag moom waxati na te saa yu waxee rek gars yi bàyyi ko xel moom Selbé Ndom nee na danger amul benn yoon si match Sénégal ak ñi nga ni ñooy wa Qatar am na nag fu mu ñu bëri nee nañ ñi nga xamante ni ñooy waa Qatar seen premier match dañoo wonewul li nga xamante ni rek moo mar a gën a moo ñooy waa Sénégal loolee rek moo tax ñu bëri naan Selbé rek la sukkandiku ni match boobee du am euh, benn danger waaye nag moom Karamba yëkkati na ay kàddu ba wax ni sax dafa war a dem foofee ca a ngir teewal ñi nga xamante ni ñooy gaynde dafa mel ni nag dafa mujj weddi loolu kàddu yi nga xamante ni moom Karamba yëkkati na ko di wax ci équipe nationale bu Sénégal bu ñu sukkandikoo ki nga xamante ni mooy Selbé Ndom dafa mel ni kat équipe nationale bu Sénégal jamono ji dafa am ay joueurs yoo xamante ni dañoo am ay jafe waaye nag moom Selbé Ndom fa muy daanalee rek naan li nga xamante ni mooy ndamu équipe nationale bu Sénégal nii la ko gisee waaye nag pour ñu am ndam moom Selbé Ndom nee na nag équipe nationale wala sax képp koo xamante ni Sénégalais nga da nga war a def ay ñaan yu saf-saf fépp foo ti nekk biir euh, ak ngir sunu gaynde yi mën a am ndam waaye nag dafa mel ni kat benn danger rek la ñu gis muy Sénégal ak ñi nga xamante ni ñooy waa Équateur mu doon match boo xamante ni match bu mujj la si sunu pool bi nga xamante ni bu sunu gaynde yi amul ñaari ndam rek si seen match yi ñu dëgmal dinañ génn wala sax dinañ jóge foofee ca Qatar te fii si Sénégal waaye nag mbokk internet yi ñu xamal leen équipe nationale du Sénégal wala sax ñu fàttali leen dina jogante ñi nga xamante ni ñooy waa Qatar di pays organisateur waaye nag équipe nationale bu Sénégal lu koy arrangé nekkul dara dara lu dul ab ndam boo xamante ni dina ko am si digganteem ñoom ak naar yi ñi nga xamante ni nag ñooy ay gisaanekat wala sax ay sëriñ rek lañ leen mën a woowee fii Sénégal ku si nekk nag yaa ngi yëy yàbbi ngi wax équipe nationale dina gagné ñi naan nag bu ma kii woowee rek ma ñaan ko ñaan ma benn bi ma dugal bii boobee si caaxi waaye nag Selbé Ndom moom nag nee na loolee du dëgg dara amu si moom nag luy mën a may ndam équipe nationale du Sénégal nekkul dara dul ay ñaan yoo xamante ni rek gaynde yëpp ay jóg wala sax képp kuy sénégalais nekk fii si Sénégal wala foofee ca ñaan yu rëy rëy ngir Sénégal am ndam waaye nag muy daane leen naan match Sénégal ak ñi nga xamante ni ñooy waa Qatar benn danger danger bi nekkul fenn fudul Sénégal ak ñi nga xamante ni ñooy waa Équateur te mu doon troisième match bi nga xamante ni sunu gaynde dinañ ko amal foofee ca Qatar